والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يخسيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي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 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين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 إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة قاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن قسي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال للناس الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنقوص فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول بسم الله الرحمن الرحيم أو إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين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 الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السم والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعبير على غير ما أمثلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوة أو قسم أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جسم أو إعراب بغير مكان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمؤدب من كل الحال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا ارزقنا قبل من قرأه موديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والسخاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سوء آل منكر ونكير ومن كل الديدان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 اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن فكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل نسب حسنة وبكل نسب نعمة وبكل ربع رعفة وبكل كل سماء اللهم ارزقنا بالالف انفه وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكما وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالدال ذكاء وبالراء رحمه وبالزار زلفى وبالسين صناعا وبالسين سفاء وبالسؤال صدقا وبالدعاء ضياء وبالطاء طهارا وبالصاء صبرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالقاف كفاية وبالعلم نطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاد هداية وبالآل من ألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أبنائنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين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 بجاه أفضل من لله قد رجاء حمدي لرب كريم من لا شريك له وصدريا يوما فساتعا ملاء محمد صلوات الله في أباد عليه في حسبي كل بي كلاء أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجيته جل عواما وكرما تكريم هادي وكل من لقم بريئا رحمن وابل جميع الخلق رحمة من يغنيه عن الشر من قرآنه قراء حكمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بداء يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميعا ولا يا هادي الرداء نحوت ما قدناه خلق من دران بجاه أفضل من لله قد لجاء محوت ما قدناه خلق من دران بجاه أفضل من لله قد لجاء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 wala quwata illa billahi ali azim ñoo ngi sant yàlla bu baax di am mbégte ak xol bu sedd ci jataay bu màgg bu barkeel bi ñu toogoon di diglu alquran ci ci soxna a Jaane mi doon jàng léegi alquran ci njàng mu set njàng mu teey njàng mu rafet njàng moo xam ne képp koo xam ne yaa ngi fi toog rek bàyyi wan ko xel xam nga ne jàngal nañ ko njàng mu set te ku nekk xam na tamit mokkal na mokkal bu set kon bu ñu yàlla boolee ci jataay bii dañ ci am mbégte bu baax xam naa na kàddu gi nag dañ koy yëkkate rek ci suñu ndéggalu kilifa di suñu waajur di suñu Ibrahima Bousso mii toog ak ci ndéggalu soxna May Munatu Bousso Ali di waajur ci soxna May mii doon jàngal tey xale bi bu njëkkatee ci seen kàddu rek seen ndigal dana mel na ne dana doy ndaxte ñoom ñooy ay kilifaam ci fànn yépp di sant nag yàlla bu baax ndax dëkk bi kat boroom dëkk bi da ko sos ngir jaamu yàlla ak jàng ak liggéey mu mel na itam soxna May mu ne mii taxaw na ci jéem a xamle téere yàlla bi te alxuraan hadis wax nañ ne képp koo xam ne jàng ko ba man ko di ko jàngalewaat yaa bokk ci ñi gën ci kaw suuf kon loolu dara gënu ko màgg dara gënu ko rëy Sëriñ Tuubaa itam wax na ne su ma saana gis ko mokkal alxuraan ak ku ko mokkalut bu leen di ñàkk yamale sax du ko tey ndax fonkoon gi mu fonkoon alxuraan ak lim ko bëggee woon daana wax tamit naan lépp lu waay di def amaana yaa ngi dàkk sama bëgg ca loola ba mu des alquran nee na mooy téere bi nga xam ne ku ca nekk rek na la wóor ne yaa ngi ci sama bëgg kon yooyu yëpp ay tawféex la yoo xam ne su dajaloo ci soxna may mu ne mii doon jàngal soxna may jaane ba yàlla dogal mu mokkal alxuraan tey loolu mbégte la gu rëy ci mbooleem ab jullit rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo aju ci Seexul ndax Serigne Touba alxuraan ni mu ko defoon ak ni mu ko fonke woon gisuñu ku ko teg foofu ak fonkeel booba ak tey mu mel ne nag ñu bëgg a wax tuuti rek ci ñaari tomb rek benn bi jëm ci soxna May Muuna mi nga xam ne moo sos daara ji benn bi jëm itam ci ki nga xam ne moo doon tari lay alxuraan soxna may ku nekk xam na daara ji bi ñu ko sosee léegi yàggut le 14 avril 2019 yaakaar naa su ma juumul ñett at rek lay tollool ak lu teg tuuti mu sof daara jàngal fi nit ba mokk alxuraan tari tari bu set loolu yombut ñu ko am bariwul ñun ñi ñëpp am nañ ay daara waaye yàlla taw feexale na ko ci diggante bu gàtt mu am ci ndam lii mu am te nekk tam jigéen te ku nekk xam na ne daara moom li ëpp ci ñu koy sos ba xoolee ay góor lañu doon daanaka ay benn benn nga gis ñu nekk ay jigéen kon moom su fekkente ne sos na daara ju mel nii di jàngal alxuraan ci at yu néew nii li muy wane rek mooy kon moom jàmbaar la ak ñi nekk ci daara ji di ko jàppale muy soxna maam so soxna Coro ak ñi ciy des yëpp dañu wane rek ñoom seen liggéey kon jàmbaar leen lool ci daara ji ak ci taxawaay yi ak ci xale yi mu nekk nag benn jàngat boo xam ne kenn ku nekk war naa jàngat ci lim def nii ndax lépp rek day dellu ci waajuram Baye Taale Cissé ku nekk xamoon ko ci alxuraan bëggoon ko fonkoon ko ba taxoon ci biir këram mu defoon fa daara joo xam ne mboolem njabootam gépp wut ku leen jàngal li nga xamal téere bi am na yaakaar ne ay doomam ñi ko ci umpale bariwut kon nag moom nekkoon na waajur woo xam ne taxawoon na ak njabootam di góor di jigéen di leen yar di leen jàngaloo alxuraan ba tey kenn ku nekk ci ñoom am na yaakaar ne rëccuwoo la la sa baay doon eh, yare ak lam doon jàngal kon nag waajur woowee moo tax soxna may man lii tey su fekkoon ne jàngalu ko woon alxuraan yaru ko woon am naa yaakaar ne su bëggee ubbi daara tamit du ko man xanaa mu am rek yéen a jë ak mën a jàppale ña fay liggéey waaye kon du ko man kon loolu ab jàngal la ci mbooleem ku fi toog rek nga xam ne waajur lim war a woo mooy yar ak njabootam waaye jàngal leen tey jii maa bar ca di ñaan yàlla yërëm ko doole ko ak leer am naa yaakaar na bu baax dana am mbégte mu rëy ak ak i ak ay leer yoo xam ne dana ko fekki fa mu nekk te loolu lu ko waral mooy doomam ji nga xam ne moom la yóbbu woon jàngal ko yar ko ba mën a wëlbatikuwaat mën a jàngal ñaneen def ci ñoom alxuraan loolu euh, fa mu tëdd incha allah rabbi ñoo ngi ñaan suñu borom dolli ko ay leer euh, mu nekk loo xam ne waajur yëpp dañ cee war a jàngat ngir mën a yar njaboot gi mën leen teg ci aw yoon xale bi nag di euh, soxna may mun a jaane bi yàlla dogalee mu nekk ci daara ji ba jàng ba soxna may wóolu ko jàpp na léegi mokkal na loolu rek mu bëgg lu gën leer mu indil ñu ko ci daara ji ngir ñu man koo saytu ba xam mokkal na wala déet yàlla dogal na euh, teel naa ko kaamil bi lépp macha allah mu mokkal ko mokkal gu rafet moo mois de mais wala juin bi passé la woon ba mokkalee léegi yàgg na bi ñu paree ci teel bi itam ñu nekkoon ci biir daara ji di ñu jàppale ci liggéey bi mooy sëñ Abdou Diop ak sëñ Mourtala ak sëñ Mout sëñ Moustapha Mbacke ñu ngi fi toog ñoomit it daar yi teel nañu ko benn kaamil di xool ba xam mokkal na am déet muy mu nekk ñaari kaamil yoo xam ne tari na ko bañ yëg ne moom kat mokkal na. yàlla dogal na moo waroon a tari avant ñuy màggal suñu boroom dogal ñu jàppoon aw yoon doon génn soxna May wax na leen kon nañ bàyyi bañ ñëw amoon yéene ñu fekkee. jataay bi kon loolu moo waral xëy na euh, ñu ñu xaw ko puus ba waxtu bii waaye ba mokkalee léegi moom la war naa mat ay juróom benn weer ci ginnaaw yoo xam ne saytu nañ ko diglu ko ba mokkal mokkal gu rafet kaamil bi ci mujj itam soxna yee toog téyel nañ ko ko ci benn jataay wala bokk ci ay jataay yoo xam ne ñoo ko doon saytu ñoom maam Bousso Bousso mii moom suñu ma xam mu naar ak ñi ma àndal ñépp teel nañu ko ab kaamil boo xam ne bi ñu paree wax nañ ne benn gag la gag benn gag kon kooku kon mokkal na tari bii nag day nekk tari boo xam ne rek moo mujj ci kaamil bi ngir mu àggalee ko gaaral ko ay waajuram gaaral ko ay bokkam gaaral ko ay dëkkandoom bañ xam ne kii kat mokkal gi set na wér na leer na ngir mu soññi moroomam xale yi nekk ci biir daara ji waaye soññi moroom xale yi nekk ci biir koñ bi ak waajur yi ñu xam ne kat alxuraan moom góor mën na ko mokkal waaye jigéen mën na ko mokkal ñu xam itam ne góor mën naa jàngal waaye jigéen tamit mën naa jàngale ndax xale bi ñi ko séq bam tari ñëpp ay jigéen lañu benn góor raxu leen ñoo men ñoo nekkaan nii toog ci suñu wet saytuwaat ko di ko teel soxna Ndeye Fatou Sylla mais ak soxna Mame Diarra Kébé ak ñi ma àndal ñëpp di ay jàmbaar yoo xam ne ñoomit daara lañ lañ yore di jàngale ay jigéen ba ba ñu mokk alquran ñoom ay jàmbaar lañ ñoo toog ne donte léegi soxna May mun a jaane mu àggale kaamil bi ñoomit it ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal. di leen soññi ñu gën a góorgóorlu ci fi ñu teg seen tànk te xam ne rek noonu la kon lii moo nekkoon ay seere ci xale bii nga xam ne moo doon tari mooy soxna may mu a jaane tari na kaami bi ay yoon yu bari tari ko ci ñu wuute ñu bari bañ yëg ne moo mokkal na mokkal gu wér a wér wér di ñaan yàlla sàmm ko ci ab dëndam def ko mu yor jikkoy alxuraan yor melaw alxuraan ba nga xam ne dana mën a tamit am njaboot ëllëg man leen a teg ci yoon wii nga xam ne moom la tegu ndax bu ko baayam jëlee ak yaayam indi ko ci daara mu mokkal amaana moom itam su fa jugee ba toll fa ay waajuram tolloon dana am xalaatub jaarale ak ay njabootam fi leen fi baayam ak yaayam jaarale ñoomit it ñoo leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay ndax soxna may lu mu bëggoon a jàngale jàngale ñu ko wóolu jox ko seeni doom pour ñu jàng leen njàng ma du sotti ñoom nag ñu jël seen doom jox ko soxna may xooluñ ci dara bàyyee ko ko ba soxna may mën a jël temps jàngal ko ba mokkal ñoomit am nañ ndam lu rëy am nañ teyaaba ju rëy ndax dañoo wax ne benn xale boo xamee ne jàng naa alxuraan ba mokkal wàllug ndeyam ak wàllug baayam dana ràmm juróom ñaar junni nit ñoo xam ne sawar la waroon dem ci barkeb alxuraan suñ boroom mayi ko mu ràmmu leen loolu alxuraan képp moo ko moo ko mën a maye. te baayam tamit ak yaayam wax nañ ne dañ leen a solal mbaxana yu rus ak or yu gudd ñu ma leen ràññee ci biir mbooloo ma ñu xam ne ñii ñooy waajuru xale bii doon mokk alxuraan ku jàng alxuraan damaa jégal sax ma jàng ba mokk rekk waaye sëñ Tuubaa bind ci masaalik bu àggee fekk ko fa bu nee baa siin miim rek ñu jéggal ndayam baayam ak xale bi ak ko jàngal kon loolu jar na xanti woo kenn ku nekk fab sa doom yóbbu ko loolu dara gënu ko rëy am na ci nit koo xam ne musta def lu baax bi fi nekkee bi mu faatoo ay mbokkam jël xale bi yóbbu ko daara ñu gis ne bi mu demee daara am na ñu xam yàlla may na kastu ñu mën a xam ñi fi jógee lañ nekkee mu gis ne léegi bi doomam demee daara kat jéggal nañ bàyyi ba ca mbugal yam nekk woon yóbbu ko ci tawféex te moom dafa sàgg noonu lool ci àdduna sax far doomam dem daara rek ñu mën koo defal loolu kon daara mooy li nga xam ne lim mën a fàggul waajur yi ak njaboot gi dara munta gën a gaawaay ne moom ëllëg yama xiyaama ñu bari nag dañ koy sàggane li ñu gën a xante woo mooy rek seen doom ju leen indil alal akum koom naam wedduwuñ loolu ne baax na waaye ni ngay sàkkoo taraa àdduna ci sa doom war ngaa sàkkoo taraa ngay àllaaxa ci sa doom te doom ji jàngi diine mën naa mën ñaar yëpp mën na laa fàggu taraangay àdduna fàggu la taraangay te boo nekkee ci biir daara di jàng dañuy jàpp ne xale bi dafa tardé déedéet ndax sëñ bi wax na ne suñ boroom suñ suñu borom ci boppam moo gàddul wërsëgu kiy jàng kiy jàng wërsëgam suñu borom ne maa ko ko warlul saa su noppee rek ma jox ko kon jëru yàkkamti nañuy bàyyi xale yi ñuy jàng alquran waaye di jàng seen diine ba xam ko gis nañu sax léegi ñu jàng ci alquran sax daar yi ba mokkal bu ñu génnee dem école ñooy gën a gaaw fuuf ak wattu ak mokkal ak àgg ci niveau yu sori ndax li xas njëkk ci ñoom mooy alquran day ubbi seenu xel ndax mboolem luy diis ak luy jafe alquran mënu gën jafe xale bu ko xas ba mokkal rek amul leneen lu munta dékku ci am xelam kon ñuy bàyyi xale yi ñuy jàngal Alxuraan ak xam-xam bu noppee lu ñu bëgg jàng incha allah bi des na ko mën a jàng ci diggante boo xam dana gàtt lool kon alali àdduna bu mu tax rek ñuy përfetoo xale yi di leen jële ci daara yi di leen dugal ci njàngum nasaraan donte baax na donte baax na dàquñu ko waaye dugal ko fa rek ngir bëgg sa doom am ci moom yaakaar mu jàng man laa dimbali déedéet nit ki daa war a yaakaar gis nga bu ñu xoolee sax ci Serigne Touba ci mu njaboot gi ñoom lañ gis ne seeni njaboot ak seeni doom yaakaaru ci ñoom dara ñoo leen di yor di yor bakkar ñu faatu ak lu ci nit mage mage da war a jàpp ne sax njaboot ñaana yàlla loo leen yore bakkar nga fi jóge waaye bul yaakaar ci njaboot gi nañ gaaw jàng gaaw ma gaaw teete ma xanaa kon yow yaa ngi yaa ngi gàttandu di gàng sa bopp ak tële dabla ak ñàkk man dangay ngay ñaan rek yàlla suñ boroom bàyyi la fi ngay man di teete njaboot gi ba keroog ñoom bu ñëwee teete seeni seeni seeni seen xale loolu mooy li nga xam ne ñun ñëpp buñ ci maasee rek bàyyi ci xel am nañ yaakaar ne danañ mën a taxawu xale yi ñu jàng nañu war a jànge parce que ñu baree bare buñ jàngee ba mokk rek liñ nekkoo ci ñoom day gaaw rëcc ndax du leen may temps buñ ko mën a téeyee ba mu sax ci seeni dënn bu baax a baax dañu mokk rek ñu jël leen fa. yooyu yëpp mën nay bàyyi xel ci waajur yi ak ci ñuy jàngalu seeni seeni seeni seeni doom di ñaan yàlla suñu boroom gën koo dëgëral gën koo kàttanal soxna May Muuna mi nga xam ne nag fi jeexale moo doon jàngal. Euh, soxna May Jaane jigéen la waaye jigéen la gu baax gu yaru gu am ay jikko yu baax goo xamee ne lu baax ñor na ko lool moo waral mu samp daaram ji fas yéene liggéeyal yàlla ak sëriñ bi ci biir Tuubaa gi ci daara alxuraan ku mat jàpp la ku mat a jàppale la waaye ku mat a roy la ñi ko xam ñëpp ñun ñii de ji ay bokkam xam ko lool dëkk ak moom yàgg ak moom xam nañ ne nit la koo xam ne ku baax ku tegu ci aw yoon la ku tegu ci aw yoon la su fekkoon de mel na neneen moom du ma yëkk sama kàddu di seede loo xam ne amut waaye ku ko xam rek xam na ne nit la ku baax nit la ku ku ku yaru ku bëgg li muy def ab soññee la ci mbooleem jigéen goo xam ne yaa ngi bëgg lu baax nga xam ne kat yoon wi mu jaar ba def lii mu def ku ca jaar am li mu am te sos lu baax di ci liggéey yàlla di ci jéem a góorgóor sa kem kattan ak loola nu mën tudd rek moo xam da ngay jàngale moo xam da ngay def leneen lu baax lu mel ni jàngale ndax jàngale kese nekku bi waaye ñoo ngi koy ñaan di ñaanal mbooloo mi fi teew ñu ñaanal ko yàlla suñu borom kattanal ko dimbale ko musal ko ci cat musal ko ci am ndog ba lii mu bëgg a liggéeyal euh, maamam suñu borom dimbale ko mu àgg ci fu kawe njort maa ngi taxaw ndax jataay bi yàgg na gudd na lool itam waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ñi fi toog ñëpp dara lu fi lépp li ne fi bàyyi rek mooy alxuraan moo la ñor te dama naan mel nii kat kilifa yi war nañ ko di ko fekkee di ko teewe ndax lu baax rek moom la kon bu kilifa yi teewee bëgg lu baax am ay yitte man ko mën a muñ bàyyi ko toog ci tàngaay bi ngir lan diglu xale bii doon jàng alxuraan ñoo ngi leen jaajëfal ci loolu di ñaan yàlla su mboroom fay leen ci ndax seen jataay bi ñu toog ab soññee la ndax amuñ jot ñoom ñëpp waaye ab soññee la ci ñoom mbooleem koo xam ne yaa ngi leen gis ci jataa bi nga xam ne kat lu baax moom ña ko war a taxaw buñ fa jiitoo dana soñu ñëpp waaye ña ko war taxaw buñ fa nekkut dana xaw a doy waar kon nag ñoo ngi sant di jéggalu di wàcce suñu kàddu di xam ne dañoo munta wax wax dëgg yàlla tële ko lool itam xam-xam bi néew lool waaye nag waxi yéene la ak waxi euh, mënuñoo ñàkk ba njëkk ci kàddu pour seede li nga xam ne moo jaarul ci ñun dañuy jox Euh, suñu waajur sëñ Ibrahima mu tëj kàddu ñaanal mbooloo mi ñu mën a yeewu ko ba beneen yoon incha allah rabbi aousu billahi min asheytaan rajim la hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim ñuy tàmbalee suñu lépp rek ci sant borom bi tabaraka wa lépp ci ay dogal bu ma doon rek ñu sant suñu borom di julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem xeeti jullit ñi di sant suñu yaakaar teegal Xaadimu borom dolli ko ay leer dolli ko yërmande ak ngërëm di sant mboolem ñi fi teew ñëpp di leen gërëm xam naa wax ja sax wax dëgg yàlla jëru guddal ndax li ñu waroon wax lépp suñu seexu naa wax na ko ci jaaraat ci moom réputé réputation rek la doon kon daal ñu ngi xam ne moom wax ji moom ñeel benn gi cant la digg bi cant la mujj gi cant la lépp ak cant la euh, sant gi nag mu ñetti mbir ndax cant gi benn bi xale bi doon tari léegi moo ko moom ndax ak jagle la ci doomu aadama su borom moo seet ku ko neex ci doomu aadama yi mu def leeru alxuraan ci dënnam kon moom bu bokkee ci ñi su borom tànn def leeru alxuraan dënnam kon moom cant sant la koo xamante ne euh, su mënoon a wax comme ni ko sëñ bi waxee woon ñu sant la ko suñu borom dana ko wax beneen bi ñu des euh, ki waroon jàngal moo ko moom moom it mu cant koo xamante ne Eh, wax nañ ne benn alf rek boo defee ci boo ko defee ci doomu adama mën nga ma yabay sëriñam kon defe naa ne xam-xam ku ko jël lu toll ne alxuraan def ko ci benn doomu aadama yow jagle gi la suñu borom ba nga def loola moom it cant goo xamante ne mënoo fay suñu borom cant googa kon muy gën cant beneen cant bi ci nag nag wajuri xale yi xale bi nga xamante ne moom tar ñoo ko moom ndax itam leneen na nga fi ñu bàyyi loolu tànn lii kon liñ tànn te liñ tànn di ngeen ci tànneef kon ñoom jant cant googu ñoo ko moom waaye nag ñu xam ne li wolof naan mbuus defu lu gën pepp te dëkk bii dey bi ko borom di sanc daara taxoon sanc ko daara nag ci lépp tàmbalee bala ngaa mën jàmm yàlla danga nga jaar ci daara bala nga def dara lu baax da nga jaar ci daara ndax daara moo lay xamal fi nga war a jaar fi nga war teg sa tànk ba mën a jàmm yàlla daara fii la lépp tàmbalee borom bi nga ko sanc daara la ko defoon kon su demee ba daara yi dafay doole ko nii kon ak sant rek lañ ci lañ ci lañ amee di sant nag mboolem kilifa yu baax yi fi teew ñëpp kenn ku nekk di sant di la gërëm te di xam le ne euh, am na loo xam te nag moom il faut nga ñu bàyyi ko xel ndax defe naa bu ma jumul bëkk dem rek laa ci waxtaan ak sëñ naa ci ñu xam ne daal euh, li wolof fi dañ wax naan euh, li wolof fi wax lem gu mbaam naan dañ fexe bu ñu dal ndax takat dafa am loo xamante ne responsabilité dafa partagé wu li mu partagé mooy comme ni ko suñ bi waxee léegi rek xale bi moom liñ ko li ko ay wajuram maanaam mooy dugal ko mu jàng mu am joomi jàng ba yàlla dogal mu mokkal alxuraan kon def moom dafa am beneen sart boo xamante nag moom la ci waajur yi am te moo di ñu fexe nag bañ ko bàyyi boppam bañ ko seetaan ndax jàng metti na jàngal metti na jàngalu metti na jàng metti na mooy xale bi jàng dañ ci daara ji lu nekk ki ko jàngal dañ ci lu nekk ay waajur mit dañ ci lu nekk kon nag ñett dajo jooy nag bu ñu ko daj ba pare wala bi di ko seetaan ko mu yàqu loolu lu mat a bàyyi xel la ba tax na sax man maa ngi ko di wax sëñ Cheikh naa ba ki dem na ko ah yéen ñi nga xamante ne yéen sëñ daara yi day war ngeen a jógaat soo seen dàll ndax dafa mel ne ak soppi ko war naa mën a am soppi ko mooy ah, comme dëkk bi léegi am na biiru fi ñuy wax ne maanaam daanaka mooy mooy xoolu mooy fi ñu fi ñu fi ñu tànn di fi di fi jàngal lislaam muy université bi defe naa ne yéen war ngeen jóg seen soo seen dàll dem wax ak ñoom. xamale leen kat am na loo xamante ne kat war ngeen ko bàyyi xel ndax bu ñu jëlee lu toll ni université tabax ko def ci ay milliards yu bëree bari dara warul ko loolu xamal nit ñi jàngal leen teg leen ci yoon. loolu nag su amee ña nga xamante ne xam nañ ba noppi tey ay jigéen wala ay xale yu ndaw def naa ñooñu la ñu war a njëkk xalaat nu ñu leen nu ñu leen nu ñu leen nu ñu leen nu ñu leen euh, ba noppi doo a xalaat keneen ndaxte kat gannaaw yow lu baax da ngay wut te am na loo ci am ba noppi. la nga ci am jéem koo téye defar ko ba mu baax ba noppi nag dootul leen la ci dolli. dans loolu waxtaan naa ci aussi jeexu naa te defe naa yooyu itam lu mat a bàyyi xel la ndax fii euh, moom wala fi dañuy wax ne Sénégalais xam na tàmbali xam xam na def dara waaye xamul entretien ci entretien mooy maanaam lépp li nga amoon mu baax nga fexe ba sàmm ko sauvegarde ko dootul leen loo ci teg nag. kon daal man daal li may tëjee sama kàddu mooy ñaan wayjur yi ñu gën a taxawaat ci dimbali xale bi bañ ko seetaan jàppale ko ci. fépp mu fu mu toll rek jàppale ko bu dee jéem a set ñu def pour am njàngam gën a gën a jëm kanam waaye ci njàngam lislaam ñu def ci buñ demee ba xamante ne war na toll ci dugg dem kër itam ñu jàppale ko ci tànn te bañ ko bàyyi boppam ndax xëy na soo ko bàyyi boppam mën naa tànn loo xamante ne gënul ci moom te kat defe naa ne jël lu toll na alxuraan def ko ci dënub xale bu jigéen sonn ci bàgg jël ko jox ko koo xamante ne euh, xamul alxuraan walla dina ñëru ko defe naa loola yàq la yàq bu mag a mag la ndax boo fa jógee loo ca defoon rek mën na ko dindi def ci leneen moo tax daal ñuy ñu insister ci xale yi seen wayjur nañ nañ gën lañu gën a bàyyi xel gën ñu jàppale ko fee léegi loolu incha allah dana tax li ñu jàngoon jàng moom mën a am njëriñ ma ñëw ñu mën ci jëriñu ko ñëpp kon naa ngi jéggul baax a baax di sant ñëpp nag di sant soxna may comme ni ko suñu jox naa waxee rek xale la boo xamante ne euh, lu baax re moo ko ñor ndax defe naa tey bari na ci ñun ñoo xamante ne waxuma la góor wala jigéen waxuma la jigéen waaye góor ñoo xamante ne tey jii suñu amoon pàkk bu mel nii dañ ci xalaat leneen dudul dafa jàngale alxuraan ndax daañ barab commercial la naa ko def nangam nangam daa ci dem xaalis waaye da tax ñoom ñu jël mu jël ko ubbi ko def ko def def ko daal alxuraan dafa jàngale alxuraan loolu kon am na wane na ne waxuma la jigéen waaye bari na góor ñoo xamante ne moo leen gën gis-gis loolu nag euh, ndimbal la ndax defe na dañuy wax ne loo xamul loo xamul loo xamul loo loo gis ci xamoo ko rek da nga xamul cosaan la waaye defe naa ko xam cosaan yi loolu jaaxal ndax comme ni ko sëñ bi waxee léegi rek sëñ Talla Cissé mi nga xamante ne mooy way juróom ni meloon ci lislaam ni meloon ci xam-xam ak ni meloon ci diine defe naa ne su juree ku ku mel nii du jaaxal ko xam xëy na ki xamul la jaaxal waaye du jaaxal ko xam kon ni ko ñaan sama borom ko leer fa mu nekk ba sax sama borom euh, xaari ko aljana ca itam euh, njaboot gi itam comme ni ko waxee la waxee rek kooku cosaan ma dafa am solo ndax cosaan dafa am solo ndax euh, defe naa ne bu génne ci sëñ Aliou Bousso muy maamam ñëw ci taali Cissé ak ba dem ci ñi ñu xamante ñooy alxuraan la ci xam alxuraan la xam ñooy defe naa ne boo boo fa duggee ca xam histoire da nga xam ne lu mel nii du la jaaxal kon daal ñu ngi ñaan suñu borom mu doolu ñu taxaw doolu leen dimbali daara nag euh, ni ko sëñ bi waxee rek metti na na kenn ku nekk rek jàpp ca xam ne euh, mooy lépp daara mooy lépp ndax ci lépp yi taxawee ci lépp yi baaxee waaye nag ñàkk ko xam ne fii lépp yàqoo maa ngi jégalu lépp di sant mu ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuru yéen mbooloo mi kenn ku ne ci turam ak santam Serigne Matar Diané ak sono Faat Cissé ñooy yónnee ay kàddu yu cant ci sama yi jëf ju réy ji jëf ci moom ba war téerab yàlla bi nee na na ci mbégte bu baax a baax ak kontaan di ko ñaanal suñu boroom saxal fi daara ji defal ko ci ngën ji barke lim ci bëgg moo xam yàlla na ko suñu borom defal ci barke Seexuna Ahmadou Bamba muy sant bu baax a baax nag nee na soxna may Cissé ni mu jàppe woon soxna may jaane ci daara ji nee na comme doom jum jur nee na bañ na ko ba sax effectivement sax lépp lu muy sol moo koy xotti ba ci lii mu sol nii ci tari bi sax daf ko ne man maa koy jëndal sama bopp loolu nee na am na ci mbégte bu baax a baax a baax nee na kàddu yi soññee yi sëñ Ibrahima Bousso dina ci bàyyi xel bu baaxa a baax a baax di ñaan képp koo xam ne si teew nga fi rek suñu borom defal la ngeen ji teraanga ngeen ji xéewal ak pay gu kawe njort ci barke Seexuna Ahmadou Bamba di seede ci soxna May Siise kàddu cant yooyu ñuy wax ci moom ku am ab yar la ku am ay teggin ku am sutura la ku baax ku am yëg-yëg ci ay bokkam soxna May Siise ñëpp la yamale kenn ku ci ndagay jàpp ne fi mu la teg yow rek la te boo seetloo sa moroom xam ne ni mu la def rek la def sa moroom man mii ñoo bokk baay moo ma magee ci mageelu doomi baay ay weer yu néew musuma nuyu te sukkalu ma loolu rek màndargam fonk ay bokkam fonk kilifteef ndax góor laa waaye mënoon na ni moo ma mag wax dëgg yàlla nit ku baax la mënee su koo seede li lu romb nit ku baax la ko am yow ab yar la ko am i teggin la yàlla ko suñu borom defal sutura su ànd ak teraanga gudd fan gu ànd ak wér sàmm ko ci barkeb alxuraanul wasalaam. gën a rafet daanaka mënu koo yëkkati ci ay kàddu euh, di ko gën a ñaanal bu baax di ko gën a sant sunu borom gën a yàggal seen ab ànd te gën a barkel te gën leen a jàppale ba liñ bëgg ci daal ji lépp rek ñu amee ko ni ñu ko bëggee.